ak ay ñoñam i bari duwaani na yàlla dottil say xanaa tijaani ak ay ñoñam saa i bari duwaani ibnu abbas na nga naan gis naa bu wóor te ki wan bur yàlla lay xeeti cant lépp ñeel na yàlla gis naa bu wóor te ki wan bur yàlla lay xeeti cant lépp ñeel na yàlla ma jóg di waxtu ma ni ko bur yàlla alhamdulillahi nu sant yàlla ak bépp làmmiñ fil wujuudi ak i xol ak bépp ruu bu yàlla def ci jëmmu sol ma dellu gis gépp yëngal ak dalloo fa moom la bàyyi ko te moo ko yelloo ma dellu far ko gis bu wér ci xol bi muy lépp lépp loo fi gis ci dun bi Ibnu Abbas nee na maa gëm te wóolu seede loo ko lii bu wér mi moo di lépp mooy ka feeñ ci bépp mbir te maay ka gëm te dellu seedaloo ko ni yàlla mooy ka yónni ngeen ji nit wàcceel ko téeréem ba lamb lépp la xamloo ko ci meloom yu kenn xamul waayoo ko mooy sangu lépp luy mindiif soppeem ba muhammadun moo jëkk xam borom ba te mooy ka yàlla sante boppam ci jëfam biram yu roy raw na xel ba ko ngëlëm moo jëkk mboo mujj solo wi rëy weesu na nit malaayka ak luy jinne yent yàlla muhammad moom yàlla rek moo ko xam te may ko lu weesu cey turam wa moo jagoo ko ibnu abbas nee na yonent bi nu mu ni nii la yàlla buur nee noon la bu nee du nii ñu ni du nii fa yàlla bu gërëmee yàllay gërëm ba faw su gërëmul yàllay xaram na raw dolli ñu yow yàlla ci bépp waxtu julli ci moom may nuy ëllëg nuy xam nuy gëm di sant tey gërëm ay dogalam yépp ci lépp fépp ñuy ñamuy gërëm jaam bu jubee day nangulub sangam dogal te léppi ne ko topp lépp luy ndigal ab jaam du tànn jaam du taamu jaam amul xamul sañul manul dees koy manal la gën a ci may buur ba yàlla am jàmmi xol yal nañ ko may bu sell nangu dogal ya mutlakan mooy jàmm ju wér te sax te yëg ëllëg mooy sàmm moo tax yeneen bay sangu gépp naa si na wax ci baay taxam abbaas nee na ko baay sàkkul ci yàlla jàmm muy benn baat bu boole lépp lambu ibnu abbaas a ngay ñaan nee na na buur saxal te dolli jàmmi diine ak jàmmi duniyaa bi matal fa yéene muñ leen di ñaan di mandikoo yàlla ci noon bu mag ba ak bakkan mi ràllu lakkal nu lakkal nu fa yàq yéggul yaa rabbi gépp lor ta may ñu yeggal xam leen ni yàlla moo di buur ta weetoo ga lépp doo fa gis kuy wutoo yàlla moo wàccee wax ni ku la yow min fii sëhëni notam ga mooy la foofe ak li fii moo fal di falli ñaka soob bépp xefin junniy junniy daanu mu fel seen kam ñeneen amal ca ñàkkal ca dulal ca rey ca bégal ca merloo wutal ca ca naka soobe booba lenni kenn amul lu dul ju wéet ji lépp moo amal booba la fal booba la fal ina ko neex ca ko neexe moo di buur du jeex yàlla amul ku mi di sool amul kuy jàppale amul ku naan nii la du naa di jot li u jomb na di am kuy wettali jàlla wa aasa mooy ko sos mooy mottali yàlla atteem ba wéy na moo dogal booba du tey mu neex mu naqari di yiw mbaa di ay atteem bu sax ba bépp jaam bu gërëmul wiyam nga mooy këréer te juum te yaruwul nee na bu wér may tudd man sellam nga ak lay kaweem nga tey takoog màggal ga yàlla nee na samay dogal jaam bu mu neexul génnal wéret ci saang moomeel te wut ko àndal te ci lal bi si la te génn teega mu tal ma asamaan ndaw sonn te wut keneen bindu ko moom kon nga la moom fu mu jëm ku jaaxle kii lan mooy soloom Ibnu Abbas nee na nan tuub te réccu balu buur ba yàlla mooy aji baal ku réccu mu baal la lu dib dogal bu naqare nangul te muñ te xam ni buur ba moo ko def te moo ko sañ te mu def caab jullit mooy la yiwam bu wóor mu xam wala xamul yàllaay ka xam yàlla wax na ci alquran ne ase an takrahu shay an wa huwa xayrun lakum tannabahu summa ase wa huwa sarun ibnu abbas nee ma tekkil leen baat yi ci ay walaf namoo amaana ngeen di sib dogal ci am mbir te fekk mooy la gën bi ñeel leen ci lu bir nooneet la ngeen di bëgge mbir daw jëm ca mu neex ci xol te mujj gërëj cu ca kon yàlla buur bi mooy ka xam yéen xamu leen mooy yàlla bareel ay yërmandeem te yéegu leen sax na te ni lépp luy bànneex tey te du ci yàlla ak mujjam naqar wu doy na yàlla dottil say xanaati jaani ak ay ñoñam saa i barit waani sax na te wér ni lépp luy bànneex tey te du ci yàlla ak bu jëm na karu doy nañ bokk sant buur ba yàlla ci tey balu réccu bu wóor lu weesu woon ci tey jalu nañ bokk sant buur ba yàlla tey balu réccu bu wóor lu weesu woon ci tey jalu nelaw yu doy na yeewu te dun bii du kër boo ko defee def joote Ibnu Abbas nee na nelaw yi doy na yeewu leen te yeete dun bii kër boo ko defee def joote war ko ca teel boo ko warul mu war la te ku mu war perte nga gàcce wër la mu jëm ca waayam kay yafal ak xarma dëbës ki jot paaka ba teew muy namm addina mu jëm ca waayam kay yafal ak xarma dëbës ki jot paaka ba teew muy namm Ibnu Abbas nee na àddina mbiram ya leer na ku ko def muy sëb cër yaa ñàkk yelloon te ngay am xar yemal fa yàlla buur ba yem ci ay mbiram nga bind xam bul weesu kemu li nga si am jàpp ko kemtulaayu jàppam fii ci yow leneen la sa sànja te muy ñeel dootu yow nekkal ci yàlla kemtulaay ngay soxlaa lépp ci moom sa lépp nekk yàlla Ibnu Abbas nee na laaxira foo toll dee ko liggéeyal cem sax nga togg gana ñor bul géeyal na doy la ci moy la la doy ci ab soy bu dal ci leex teewul mali ci boy moy Ibnu Abbas nee na doy la ci moy la la doy ci ab soy bu dal ci leex teewul mali ci boy moy adduna ab tool ka bay ta delloo ca kër ga am mbayam dunde moo kiiloo ka baytaan diwul ca kër ga am mbayam bàyyil ko tool ba ku yëgoon gaawe rayam sa waroy wala waroon a jàlle yow bu la waree ree di xalla xalli Ibnu Abbas nee na àddina sa waruwaay wala waroon a jàlle bu la waree ree di xalla xalli ku la ni ndin nga moo tooñ tamoo xamul lana din fa yàlla may buur te amal sawaru aay la seddalil noxraam ya sëfal sawar jàll mu des gaayam ya warkat ba daagu war dañal tey tëgloo gaayam ya ñépp nañu day ñuy feeloo sëf ba ñu diis war di dawal ñuy kontaan ci crédit ñeewu ku di yéemlee kéemaan ñuy daw guddeeg bëccëg te xeeb loo lañu daw ba bis ba muy sóob leen ci kàmbu daw te raw adduna ngoog ba bis ba muy soob leen ci kàmbu daw te raw ca maam ya ak maamaa de kay soloom nga war ko mbaamu war la war la ngay gol goloom foo yéela fépp ñàkk loola wépp yiw coona bu coona ba faawu dee ko daw sa waxtu jaar si la fabal sa dog ca boo ca dogul mu dog la yow liy gàcca Ibnu Abbas nee na sa waxtu jaasi la fabal ta dog boo ca dogul mu dog la yow li dara du dem ci neen di lii mbaamu di laa fuglul te fog dakkal ma falaa falaa na yàlla dootil say xanaati jaani ak ay ñoñom saay barit waani duniyaa jeex na nga def ci bi yóbbal farlul te yokku jëf lu baax te armal raflewu bañ talu bu wér ci lépp leneen lu dul yàlla mu doy ci fépp sag bëgg yàlla na mu day na day ko sag bàyyi àdduna ci xol nga am ko yàlla ci xol néegam du dugg gis leneen benn mu wéet ca mbaa mu génn jëm feneen Ibnu Abbas nee na loo ci laabal néegu yàlla bii di xol defal sa dolli waaye ca téey ba lee ko fal gannaaw ba am nga buur ba yàlla am gu wér waxal leneen jëmal feneen fii du sa kër am ka yàlla lu mu ñàkk bul ko xam ku am leneen te ñàkk yàlla lan laam du tus battu si jeex lu dul rëccu ëllëg matt wiccax loxo fa des al ko fa lépp yi bàyyi ko te lépp yi delloo tout ak leneen ab dof nag ba réere ak ndofam fa nit ña moo di nag nee na ab doom nag bëreere ak ndofam fa nit ña moo di nag wax ko ni nag wi moo di sax tooñ lay nag ndax melaw nit la yor te sag ji ab sag Ibnu Abbaas nee na sa woote am yàlla du doy ci ay wax jëfal ñu gis ngir yàlla rek tamu sax am yàlla pas-pas la bu sell wér ci xol wax teg ca jëf lu baax di seede tey melal looy def na yàlla tax bu jeexee taxawal wala mu diwuñ jaa ajaan di jooti diw sambal ibnu abbas ne lu yàlla génn ku fa des loo fay def xanaa jaamu bakkan ak jëf booy bay muy bay si lee ngay noyee bul naagu bul xaddi bu tool ba nay la jëkk jëf na yéene sell jiitu foofu lamp sunna foofa jëm di niitu jëf yi ci sellug yéene lay rawante wa innama ahmaalu binniyaat yeneen bu tedd baa ko wax te nee la ñeel la mooy yéene na baax di baaxaat yàlla na sax ci moom salaatullaahi ak ña gëm ñëpp li waji laayi Ibnu Abbaas nee na soobul ca yoon wa gaa yu baaxi soobu woon asalafu saalihu ñooy mas gara woon peeseel sa jëf ak seeni jëf bul bay bul yokki mukk ngir ga wuteeg maya mu jaar ca yoon wa gaa ya jaaroon am ndimbal lu wóor fa yàlla ngeen di toñ waaju fawul santal ci xéewal lay safaan nga muñ ko xéewal ga yokk lay safaan waññeeku banneex saxul nakar saxul ñoom ñi la ñaar ñoo di awante jaam yi lay leen wa naar bu ne ci ñoom yàllaa fay feeñu jaamam kii sant ki muñ ci nekk ak saamam bay ku ci nekk yóbbul yaakaaram ay junni junni yo kay yaaram ànd bu wér ci yar ma ndey borom baa yu neex ya ful na lay naqar ci dun bi te jàmm yàgg ba mu fuuy dew fàtte démb ëllëg kii ko dal moo metti bàyyil ko bis bu aay ba ay xëy moome doxal fa lay jàmm te ñoo ko luume nga gis ku saalit ñàkk lépp luy sagoom def jëpp njombe di ko wax amul sago Ibnu Abbaas nee na bu jàmm aaye yàlla na yàgg deel bégal sa bég ci yàlla balaa ségal bu dee safaan ba da nga muñ ci yàlla tawatu saali du ko fa gàcc julli du saali ta di bew luy bew sax ak lu di saalin nga mu del rek jaam bu desee woolu desee gëm yàlla mu am mu ñàkk foo ko gis du sàlla asaatiyu ilimaan di siiw jaam wax na ci ay kàddu yu wér ta siiw ca lay wayafal nattu ci jaam xamam ga ba gën tiis te yàlla def mayam ga ak la mu moy tiineem di ànd ak buur ba digle ca wépp yow di ñel borom ba na yàlla dotti say xanaati jaani ak ay ñoñam saa i bari duwaani sag dem aljana nay yamoon teeg say jëf yu baax bul nangu ñuy luumante sag bañ di tabbi naar yal na buur musal bépp jullit ci ñoom te bañ ni kenn mosal nay askanoog sag daw la yàlla buur ba tere ta loo ca laal nga tuub ca booba nga buur te yàlla tax la jóg ngay gàddaay daa fekk yàlla mu di buur ba mat waay koo mën waayoo ku moom daa rëccu ni siiw ëllëg doon te maneef naa xaj Ibnu Abbaas nee na dawal te teel ba dee si man for dal taataan balaa taw baa sewet lii mooy fulla loo dawalul mu jëm ëllëg moomoo ko inna baas nee na alal ja lu mu bari bari ñeneen séddoo ko te yaay ko sonn perte lépp na mu day réglé ba ñëw ëllëg te yaa fay joxe lay la ca araam mbugal mu sax la lay jural la ca dagan laa jeem la lépp ngay biral yu lënt yaay lëndëm gu tar foo daw jëm ñu ni du fii jaaxle fa si jiyam bu ñu yëgoon bàyyi na woon dellu cosaan baa ñu dool fa yàlla lépp des di ñaan ak ñàkk a xam amul ba day ni déedéet saytaane ak bakkan méngool du déet saytaane ak bakkan ku méngoog ñu la ñaar ñu fab la jox àdduna jëy ngay bakkaar ñu dellu yeew la settalee ko ñaari deel daraja ak dërëm nga dit jaam yi dammeel kéema te yërëm xolub jullit du muñ lii ci nit ne moo am daay laaye biir tey dolle Ibnu Abbaas nee na xippil ci xol te xool ba xam yow yaay kan filee di fan lii moo di lan te bañ di sën nit ak meloom wu tedd yaag ruuxam bay leer di jaaxal luy mindi sellam nga yelloo wulëg mu nekk mbaam dun yaasi yat wari dal mu xeeb te law bi kaf yàlla woo la nekk mbaam duniyaa sëf yat wari dal mu xeeb te law bi li du kaf ko bind moo ko tëbb ciw meloom yu weesu xam-xamu mbindeef yi ay soloom mooy leer ga fàqe aalamul ulwi wàcc di gan lil alaami suuf lii yaatoom ga dañ na addunaa go xam ya ak la ko weesu jàll cey mayam ya moo am te dootu ñàkk mukk abada day tuxoo fii jëm fee du dee sarmada yàllaa ko wàcce boole koog bi nit ba ñu dëkkandoo ca xerañu borom ba yàllaa ko wàcce boole koog bi nit ñu dëkkandoo ci xerañu borom ba leer ak lëndëm ñooy jakasoo yëppi daw ku nekk ak lifam mu ñeel ko ci laaw ruugeet malaayka yi ñooy bokkee cosaan yaram wi ak bàyyi mayey weccey malaan ca seen diggante yàlla bind lay bakkan mu xejj tey jange tay fewam sakkan ku ne ci ñoom woote di ñoddi teeyam ruu jame kaw yaram ci suuf mooy yaayam bakkan taxaw farag yaram te nand mu nekk léppam foo ko gis ñooy ànd boobee la yàlla wàccee xel ak bànneex ñi ñaari ndaw ku nekk cëram bakkan ni miir xel wu tiru moo ko jagoo nekk jaraaf banneex di ñeel bakkan ndaw lu ay la gaaf seen xeex ba judd ku ci nekk ak waayam waaju ci neen ma ngay lawal ay gaayam bu xel ma tee roo daa di not bi saasi moo ëpp ay ngànnaay yu xeex naasi ku doonee cërub ku sàggan loo ci xam ku farlu far ko ni tariix di yëg du xam musul ci lii ndawal bakkan lay bànneex bu xel amul fayda ja mooy xëy ni ko ciix rendi mu sedd aji dee jeexal na ndeem xataloon na démb tey yaatal na Ibnu Abbaas nee na àddina bii faf loolu mooy li am ci ñun tey ci lu wér bànneex a yàng xel mu dee cey mi la mbir bànneex kañu bakkan di boo tayee yaram ne xew a xol ba woolu weppaay ruu def ni toj cib kasoom ñoom ñi doxal seytaane re ba kekku jaaxaan fit wadal